seen mbokkum taalibe Moustapha Guèye taalibe sëñ Moustapha Massamba di soppeb sëñ Mbakke moom maam soxna Lo Diop Taïf tey ànd ak sëñ Muntaxa ci liggéeyal sëriñ Touba saa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér lool tey roy Cheikh Abdoul Ahad ci ak dëgg di encouragé sëñ Maam Mor bu Cheikh Mamadou Mourtada naalu l'islam bii nga xam ne waajuram moo ko fi naaloon nekkaloon ca boppam ba xëy jóge fi mu wuutu ko fa yàlla na ko àggale di naal naali boppam di naal di naal di naal abadan amin fa yéene dikkaat tey ci ormay Touba muy lu am solo loo xam ne am na solo lool ci ñi nga xam ne ñoo dëkk Touba ak ñi nga xam ne ñépp ay modit lañ te dëkkuñu tu biir Touba ngir ñu mën a sàmm orma ji dox suñu digg ak sëñ moo xam nga nekk ci réew ma moo xam nga nekk ci dëkk ba moo xam nga nekk bitim réew fu la àddina mën a foo mën a nekk ci àddina rek nga xam ne orma joojee daf lay war ci sa jëmm lay doon waaye nekkul barab boo xam ne foofu rek ngay war a mën a nekk jël orma ji jox ko sëñ Tuubaa orma ji ci sa deret lay nekk gannaaw ba nga waxe baatu seede yi nga xam ne moo lay taxa dugg ci lislaam ba ñëw yeesal sa njëbbal ci yoon wi jëm ci yoonu lislaam muy siraatal mustaqim boobaa nag foo mën di nekk ci àddina na ngay yubbaale sa lislaam foo mën di nekk di fa jaamu yàlla di fa def lépp noonu nga yóbbaale ormay dëkk bi ormay sëñ Tuubaa ndax bu ñuy wax Tuubaa dañ naan borom Tuubaa borom Touba moomee nag moom lañuy ñuy ormaal ku ko ormaal ormaal dëkkam ormaalum njabootam ormaal lépp lu mu lu yàlla ormaal te ormaal ko mooy dëgg dëgg ormaal yàlla kon nañ bàyyiwaat xel bu baax ci sëñ Touba tey xool mbindam mii mu bind ndax mbind mi ab gindikukaay la boo xam ne jamono boo koy jàng te di ko seetantal doo réer te kenn du la réeral ba ñii ñu jàpp ne sax ay gidd lañ ci yoon wi ñu ay sëriñ nga xam ne murit boo gis tey boo ne ko kuy sa sëriñ mën na laa joxe ne la diw muy sama sëriñ ñooñu sax am na ci ñooñ dañuy dem ba benn jëmmi jamono li tax sëñ Tuuba boole leen ci boppam ba boole leen ak mbooloo du dañ koy fàtte ba boobaa nag yow da nga mën a gindi ko ci mbindum sëñ Tuuba mën a dem ak sa bopp loolu mooy li nga xamante ne sii mooy li wér kon nag su ko defee sëñ Tuubaa moomu orma ji ana nan lañ ko ko war a defee mooy nañuy sax ci jub rek ci sayu làmmiñ ci say jëf ci sab xool ci sab dox sa xarakaat yépp nañ ci ormal sëñ tubaa loo dox jëm rek nay doon lu baax looy xool nay doon lu baax looy xalaat sax nay doon lu baax looy wax nay doon lu baax ne lépp doon dëgg rek loolu mooy dëgg dëgg ormal sëñ Tuubaa loolu mooy jomb jomb jomb ab murit day jomb waaye ab murit du ragal ab murit du rus ab murit day jomb te loolu sëñ Tuubaa ko waxoon ab murit du rus ab murit du ragal ab murit day jomb ndax rus loo ko def lu nekk boo gisee la ñuy rus mën ngaa bàyyi loola waaye soo ko gisul nekkat ca loola ragal lépp loo xamee nekk nii yaa ngi waaj a def dara ba gis ka nga ragal mën ngaa bàyyi loola ngir ragal ga nga ko ragal waaye su jàllee nga defaat loolu jomb nag mooy man de jomb na maa def lu ñaaw ngir kat lislaam ji ma nekk te yàlla wax ci lii yoonu murit bi nga xam ne ci lay jaare ci lay jaare muy yoonu lislaam sëñ Touba nii la nekke woon nii la bëggoon lii la daan digle lii la daan tere moo tax sëñ Touba ne jomb moom la ab murit di def waaye morit du ragal murit du rus murit dafay jomb jomb man de jomb na maa def lu ñaw Moustapha Guèye ngi fii wéet na gis na bépp buntu bonukaay boo xam ne sii kat tey dara doxul digganteeg moom xëy na sëriñam ba mu jébbalu day rus na ko rus goog moom bu ko gisoon du ma dugg ci lu mel noonu waaye gis naa koo xam ne sii ragal naa ko ragal koo xam ne sii tey su ma ko gisoon ragal na ma laal lii waaye nag tey jii yooyu yëpp dara ëmb ci léegi naa dugg def lu ma neex naa dugg wax lu ma neex naa jëfandikoo lu ma neex ba pare nekkaat ca la ma nekkoon déedéet loolu Sëriñ Tuubaa waxu ko kon ab murit day jomb te ab murit bu nekk bu melee nam war a mel war naa mat sëriñ moroomu moritam waaye loolu lépp nag ci tegu ci ak jub rek lay doon xool leen bokk yi tey yoon wi nii ñu ko bëgg a ndax méngoo na ak na ko na ca mag ña daan doxe ndax méritoo na doxit wi ñu ciy doxe ndax lii sëñ Tuubaa da koo digle ndax lii kat dañoo dem ba ci biir sëñ bi soppi ay waxam indiwaat leneen dara amul ci loolu xoola tey ñi nga xam ne tey ñoo yëngu ci wàllu politique bi tey tey nun murid yi bu nu meloon nan war a mel tey kuy dugg ci yoon wi te jaare ko ci ñun ngir xemmem nu boo dikkee yaa ñu war a gën a mën a pratiquer fuuf waaye tey kuy tappale wala ngay caaxaan moo xam façon tappale bu mu mën a doon moo xam façon mooy yàlla gu mën a doon moo fa moo xam façon def bàkkaar bu mu mën a doon tey boo duggee ci yoon wi day mel ne loola da koy gën a labbali di làqatoo sëñ Tuubaa ngir ña ngay fekk si ñoom ñoo lay darale noonu ndax jamono ju metti ju tar joo xam ne si nekk dañ ci ñi ci bari ñu woon seen bopp loo xam ne si tey man dañoo dem ak seen bopp sans talibé yi waaye ñi ci baree bari dañoo aj seen tànk dégg di foq seeni baaraam dégg nga di ñéeng duñ wax duñ teg nit ñi ci ak jub xanaa di leen jay di tànn ña ci yor xaalis di leen jay di leen wan ay karaama di leen wan ay ay ay ay ay lu nekk ñu di leen koy wan ci sëñ Touba te loolee nga xamee ne ña ngi leen koy wan kat ki dul ab jullit sax mën na ko ndax jaamukati xërëm yi nga xam ne jaamu xërëm am nañ ci ay kilifa yoo xam ne si mën nañ laa wax loo xam ne si mën ngaa dox ba teg ci sa bët waaye jub googee nag dadul jubuk yàlla yàlla jub gi mu bëgg mooy jub euh, jubu ak jubam ak jubam nag mooy lim la digal ak ak ak ak lim la tere nga xam ne mën ngaa nekk ci ab jataay ba jóge fa doo fa dégg yàlla nee na doo fi dégg yonent bi nee na xanaa ay jëfam rek boole wut mbooloo moo xam ne dañuy taxaw ca kaw am aw fit lool dëgëru fit lool ñemee yëkkati seen kàddu di xànc bu baax a baax a baax di xemmeem loo nit ñi jëmm ji nga xam ne moo toog fàtte nañ sëñ Touba fàtte nañ yàlla ormal sëriñ Touba loolee dafa bokk ci biir moo tax nit ki bu faatoo nga gis ne nax nañ ko ba dugal ko ci bàmmeel léegi nag nañ fas yéenee nax ñi nga xame ne ñoo tiim bàmmeel bi déglu leen bu baax li ma leen di wax nit ki bu faatoo nga xam ne nax nañ ko ba dugal ko ci bàmmeel nga xam ne kooka moom duutuñu téesante ci àddina duutuñu poñante ci àddina àllaaxiraa ci def waaye ña ngay fexee nax ña koy rob moo tax ñu naan ah jébbal nañ ko diw teg nañ ko ci loxol diw mu teg ko ci loxol diw mu jël ko teg ko ci loxol sëñ Tuubaa mu tegal ñu ko ci loxol yonent mu tegal ñu ko ci loxol yàlla loolu yomb na de looloo ko yomb demeewul noonu de nit ki da koy teg ci siraatal mustaqim di ko wax li nga xam ne moom la yàlla bëgg ku koy wax di ko digal defal nii wutal ay kilifa del jaamu yàlla del liggéey del téye sab loxo lu sa yoon nekkul dee ca génn ponk lislaam yi na nga ko fex ci fas yéene matale te sax ci dakk bu ci jóg waaye yow mi ko koy waxit na la cay na la cay gis nga xam ne benn intérêt doo ko xool ci moom su faatoo bañ koy denc bul yable demalal sa bopp boo demee nga wax mbooloo ma ko topp ne leen kat tey jii kat war ngeen a dellu ci yàlla xam ne kat kii mooy borom te kii mooy buur kenn muumul kenn kenn yiliful kenn yàlla daf ñoo digal ñi tane te am ay xel nañuy jiite di wax nit ñi dëgg te di leen teg ci siraatal mustaqim te ngeen xam ne bis bii kat kenn ku nekk na nga jàpp na yaa ciy topp te ku dugg ci biir kat man mii di leen wax mën a lu ma leen dara mën a lu ma ko dara ndax xumm ci lu mu nekk ndax yàllaa koy atte yàllaa koy def lu ko neex te duma ca tàggu te umma baat umma ca dogal su ko defee nit ñi xaw a ragalaat dellu ci yàlla waaye loolu day gën a tii euh, mm, rafetloo nit ñi njort ci jàpp ne métode bii mooy dugal nit àjjana ndax wax ju neex dafa neex ci xol waaye nag bu jëf ja ñëwee da nga xam ba xam wax ña méngoo na ak jëf ja wala déet ndax yooyu ñii nax ñi fi nekk nag moo tax fi ne politiciens yi nga xam ne ñoom dañoo dem ku ci bëgg intere daw làqatu ci sëñ Tuuba te loolu ñëpp teg nañ ci seen bët ku ci bëgg intérêt daw làqatu ci sëñ Touba ñoom xamuñu lan mooy gëdd ak sëñ Touba yàlla boo man ñaari aaya alxuraan wala benn baatub xasida boo xam si da nga toog ci sam néeg bind ko këru ko lu yàgg di ko répété ci ay mitin ak di wax ci ay mitin bëgg def ko ak fiir ba nit ñëpp adhéré woon ne kii kat mooy taalibe sëñ Touba kon nag nan ko jox réew mi ànd ak moom jël seen lépp dem jox ko yóbbu ko ci xalifa bi mu ñaanal ko kenn du ko conditionné ci lenn kenn du ko def ñëpp cautionné ko ñu wax ñu ne kii moo baax di ko campagnal te ay war rek moo nekk ca xol ba ay war rek moo nekk ci jëf ja te bu demee ba ci kanam loola danañ ko xam te du tax mukk ñenn ñi bàyyi ko te bisub keroog lañ koy gën di jël di ko gën a jegele ak xalifa bi te nit ki nag damaa defe ne jëfi démbam ak waxi tayam boo ko méngalee doonul benn boo ko jàppee koo ko jàppoo nit waaye nit ki jëfi démbam ak waxi tayam boo ko méngalee mu doon benn booy jàpp-jàppal nit nit ki nga xam ne dem nañ ci barab boo xam ne barabu euh, euh, réew mi la nga xam ne dañ fay dajaloo di nasaka nocc xalaate réew mépp di fa daje ñu woo fa bokk ci Sëñ Tuubaa mu daal di wuyoo ni murid yi di wuyoo mu ne ko fii kenn du fi wuyoo sant woowu ñëpp di ko dégg ñu dem ba jëmmi jamono lam doon wut ay war ak i naxaate tax mu jaar ci bunt booba ay bunt bunt bunt bu mu jaar mu sakk te mënatu faa jaar mu ne nag bunt bi gën a gaaw mooy naa dem doon ab murit daal di ñëw sol mbubbum murit murit yépp nag defe na nag kii ab yonent bu bees la bu nu wàccee wala sëñ Tuubaa moo ko yebal ne ko ñëwal topp ci gannaawam di ko ormal ormal yoo xam ne sax ormal lañ ko seen sëriñ bi ñu jébbul te du yàgg-yàgg ba mu jariñ la dara du yàgg yàgg yàgg yàgg ba mu jariñ la dara ndax mënu laa jariñ dara ànd ak moom ca loola ba mu am lu mu musta am mu xëy xëy xëy xëy xëy jikko joojee nga xam ne moo nekkoon ci moom mu xëy delloo waneete ko war réew mépp ba àddina sépp xam ne war na réew mi ci ay wax lu dul dëgg ak jëfi naafeq ak jëf joo xam ne si du jëf ju baax coow li topp ko sàppi ko lool mu xam ne lii kat dugg na ci guuta mu daat ne naa demaat Touba bu ma demee Touba ci image ba nit ñi gisaat ma ci kanamu xalif général de Mouride rek bu boobaa coow li mën naa wàññi loola nun noo ko war a jëkk bañal suñu bopp nit du tuddoo sëñ Touba di tuddi ay alxuraan tudd ay xasida nga ànd ak moom ngir jëmmi sëñ tubaa mu wane loo xam ne si bokkut ak jikkoy sëñ Touba ngay continuer di ànd ak moom ca loola. loola kon dafa mel ne kon lépp lu ko ci dikkal bu ëllëgee nun ñii kenn duñ ci mucc nit nag loo yewu yewu yewu yewu yewu yewu sëñ tubaa nee na mënoo ma nax waaye loo dof dof dof dof sëñ Touba nee na ah duma la nax te sëñ Touba dafa am lu mu waxoon leer nañ loo xam ne si man booba ba léegi ca loolu laa jafandu te Cheikh Issa Diène mel na taalibeem bu mag boobu. moo di ko ne ko cey Serigne Touba man de xuma loo doon bi nga wootee day Saalum Kajoor Bawal ñëpp ñëw nañ wuy si la waaye sëñ bi moom loo ko wax rek fekk nga mu defar tontu la ba teg daan na ko ñi nga tudd Kajoor googu nga tudd day gis naa ci ñoom ñaari sikk ñaari sikk la ko wax Cheikh Issa ne ko oh Mbacke ay Mbacke bu doon tey duma la laaj lool di mu Mbacke soo sa sikk san la Serigne Touba ne ko sikk soosee day mooy. ñoom de dañuy diis gan gan gan gan gan duñ toroxlu ci lenn duñ wayfal seen bopp ci lenn kuñ gis defe nañ ne ñoom ñoom ñoo la féete kaw te loolu boo xoolee kajoor kajoor yi ñu ci baree bari li loolu sëñ Tuubaa wax am na ci dañuy diis gan te loo leen jox ci cër ñu xeeb ko loo leen jox ci ab cër ñu xeeb ko loolu la ko sëñ Tuubaa wax ne loolu mooy jikko ji jëkk ji jikko ji ci topp nag mooy fuñ na jàng fuñ na jàng la wax di wut dara danañ xam lañ fay am léegi wala ñu daan la fay jëm bàyyi la fa loolu nag gis naa ko ci politiciens yi nga xamee ne tey jii ñëpp dañ leen a joxoon nopp joxoon leen bopp joxoon leen tànk di ànd ak ñoom di yëkkatee ndoo di dem ci kanamu sëriñ si di leen layal jël tam murid yëpp waxtu jot ñiy ñëw Tuubaa waxtu ñu yem ci kër kilifa yi waxtu liggéey ak lépp ñu jël ko jënd ko di ànd ak ñoom di wëreelu di leen layal tey nag fañ mujj mooy war war metti war askan wi ci lañ leen den woowee ci sëñ Touba di tudd ay aaya di wax xat fakka kabla xat bassa fadla fa durru walla wa nafa jaay ak yaa rabbi in ataytani fa sukru wa in manata faridan wa sabru yooyu yëpp dañ ko daan wax muy ay aaya yuñ arme bu ñu daan utiliser te muy baat yoo xam ne si baat la yu sëñ Touba bind ci ay xasidaam muy doon lu dëgg loole nag tey ji ay jëf ja jëkk-jekki muri ko wane na li ma leen doon wax dara du ci dëgg gëmuma ci dara ñuy continuer di ànd ak moom di ko indi ci sëñ mun taxaa di ko téléfiché te lay dëgg ga waxuñu ko ndax sëñ mun Muntaxa talul àddina sëñ mun taxaa yàlla la tal sëñ mun Muntaxa talul àddina fa sëñ Touba tegoon tànkam fa la teg tànkam la sëñ Touba taloon loola la tal te mooy tal yàlla talul àddina ñu jël nag andi ko ci kanam di ko modifiyeel jëfam jooj yi di ko wane ne ko kat la nga bëggoon ma nga ca waaye nag la sëñ Touba bëggoon moom nekku ca loolu waxuñu ko ndax la sëñ Touba bëggoon mooy nit ki la muy wax na koy respecté ndax alxuraan sax daf na la bàkkaar bi gën a rëy mooy ngay wax law du def li ngay wax danga koy def waaye wor bokkul ci mandarga yoonu murit fen bokkul ci màndarga yoonu murit dégg nga wax wax joo xamee nag nii boo ca wéeroo mu doonu rido bokkul ci yoonu murit te loolu ak yàq lay gën a jege ak defar te mënta sax defar ndax yàqu lay doon kon kooku ñëpp waroon a maase sotle yoonu murit xeexle sëñ Tuubaa xamal ko ne ko kat la nga waxoon ban ànd ak yow bokkut ak jëf jii ndax fii nga dugg moom la ñëpp bañ ñi yaakaar sëñ Tuubaa ba tax ñu wan ko gannaaw kon foofa képp ku fay dem di fa sottiwaat say dab mën a taxañ say wax ba pare di làqtoo waxi sëñ Tuubaa loola moom nun duñ ca bokk tey duñ ca bokk ëllëg te man mii di wax yéen foofa laa taxawee ba mu dikkee indi ay aaya alxuraan indi ay bayiti sëñ Tuubaa di damaa ànd ak moom cent pour cent campagnal ko ndax defe ne la muy wax dëgg la ndax mosuma jojo moom ci wax loo xamee ne que nii kat ah da ko daan wax ba pare te du ko def waaye nag ba mu demee ba teggi wax ja nag dama ca dul topp nag di yappar yappar yi damay daa di wàcce booba oto doonte duma am oto bu ma yóbbu wala duma am beneen bu ma langet booba oto moom danaa ko wàcc moom loolu mooy xeexal dëgg dëgg dëgg sëñ waaye àndaat ak moom jël ab temps ay waxtu mu jël ko ci alali réew mi jël oto yi réew mi jël carburant réew mi di ko dawal te carburant réew boobu muy dawal moo la tax a xiif moo tax amatoo sécurité moo tax amatoo sante mu jël sab sëriñ di ko këll këlle di ko fowee dikk ngeen jëlaat seenam temps tëj seeni kër ngir bëgg lu mu leen compal ca wor yooyee ak nax yooyee tax ngeen ànd ak moom yóbbu ko ba ca kanamu sëñ Muntaxa Mbàkke yóbbu ko ba ca kanamu sëñ Muntaxa Mbàkke di ko rafetal li mu def te sëñ ba yëgul la xew yëgul na mu demee loole bari na ci lu yàqu ci yoon wi maanaam ñàkk organisation googee bokk na ca la ko yàq kon ñàkk a ormal sëñ Tuubaa mooy di tuddoo sa kilifa ba pare di wax ne kilifa ak aada nga nga bëgg dara ngir bëgg ko jaare ci buntub sëñ Tuubaa murit yépp ñëw ànd ak yow nga dem ba ci biir war leen war goo xam ne si la nga doon wut sax jotagoo koo am war leen war gu méttee méttee ëllëg bu fekkante ne jël nañu lu toll nem réew ne la ko jàpp jox est-ce que doo gën a war sëñ Touba ci international ak war sëñ Touba ci biir national kon nañuy bàyyi bëgg alal gi tey bëgg yàlla te xam ne àddina bii saxuñu fi mbooloo mi lu mu bari bari bari bari déwén am nañu ko dul fekke mbooloo mi lu mu bari bari bari bari weer wii jëm am nañu ko dul fekk mbooloo mi lu mu bari bari bari bari at mii am na ci ñooñ buy jeex du leen fi fekk te loo amul woon it mënoo koo mënoo koo fàgguwaat ci sa biir bàmmeel kon li nga xam ne nag boo ko xasee fàggu foo nga nekk du fa doy te yàlla dana la ko fulal ba nga ne siiwa diir siwaat ci àddina loolee nañ ko fonk kon ormal sëñ Touba mooy nañ ormal suñu jëmm ji ci sëñ Touba buñ tuddatee baatub sëñ Touba buñ defati dara loo xam ne si lu sëñ Touba bañ la te nekku ca woon waaye nañ nekk ci li sëñ Touba bëgg te ko doon digle dimbalee ko sëñ Muntaxa nii col gu rafet kër gu rafet kër yu rafet loolu du ab murit ab murit dëgg dëgg ci deret lay nekk te mooy jomba def lu ñaaw jomba jomba wor jomba triané jomba def loo xam ne nii képp ku la ca gis du la ca mën a yedd loola képp mooy li nga xamante ne sii mooy ormal sëñ Touba waxuma la ñu di la tudd di tudd sëñ Touba nga bokk ak moom identité maanaam eh, eh, nu mu tuddati identité maanaam sant bokk ak moom sant nga xam ne ku la gis ormal la ku la gis lu làmb sa poche jox la wëratoo di xool lenn looy bëgg lu dul yàlla lu dul yonent bi te loolu sëriñ Touba ko waxoon. maa ngi leen di wax ne kenn ku nekk loo jàpp ne doon nga ko ci man kenn ku nekk loo jàpp ne mën nga ko ci man kenn ku nekk loo jàpp ne sañ nga ko ci man ba képp ku ma dégg ba ma jaral ko jóg bu dikkee bu ne li sëtt man ma muñ ba faw ngir xeebu ko mu gis gis ci yow gis naa ne loolu de dana ami ëllëg waaye bu ëllëgee kuy def loolu bala ngaa jéggi siraat dañ maa àtte ak yow sëñ Tuubaa wax na ko sëñ Tuubaa doon na wax ne maa ngi leen di dénk ñooñu di ñëw ci yéen muy gor yi bu ñëwee ngeen toog ci kaw ñu toog ci suuf ñu làmb seen alal di leen jox luñ jur jox leen di bay di leen jox di leen ñaanal boole kooki jooy bu ngeen yaakaar ne yéen lañ fi nekkal nekkaluñ la fi seen bopp lañ fi nekkal te bis bu ngeen demee ba xam ne seen bopp lañ fi nekkal te fëggulu fëgguwu leen woon lu leen mën a jariñ bu ëllëgee da ngeen am yaraanga bu ëllëgee te bu boobaa duma ma joteeg dara kon ndekete nit ki la muy am ci sëñ Tuubaa du doon lum nan tugg nit di ko ko faggul loolu cig réer ak ndof la bokk sëñ Tuubaa kenn ku nekk la nga cay am yaa koy fàggul sa bopp ndoomam boppam yii kenn ku nekk li nga doon présenté doon doomi sëñ Tuubaa li muy rëy rëy bu doon doy ñoo bañ waccandi ko woon nekkoon bàyyeeg taalibe yi lépp mais taalibe yi fi ne sàkku si ci sëñ Tuubaa moo tax ñu ñëw kenn ku nekk nga wuti wasi la waaye kenn ñëwu fi pour di wutal kenn nii nii def di dajale alali àddina di def ay dayra dem di jébbale moo xam dayra bu mu mën a doon ak nu mu mën a tudd loolu mbirum àllaaxira demeewul noonu mbirum àllaaxira du ne doone toog ñu di la ko fàggul jaamu yàlla kenn mënul ne tugg ñu di la ko jaamul ba pare ngay ngay jël pay ga demewul noonu demewul noonu ñun sëñ bi liñ ci am liñ ci liñ ciy wut moo gën a tuuti te taxul woon sëñ bi di dem ci géej gi muy barke bi alal ji du dara toog ne tugg tuggeeral loolu loo asgor sax lay def asgor dafa war di futtiku asgor dafa war di liggéey ndax futtiku liggéey mooy tax nga mën a am ngor te ngor googu bu amee da nga jomba def lu ñaaw jomb gi sëñ Tuubaa doon wax dafay dil ci waat lii lépp nag bëgg a tedd ci àddina bii te nangoo liggéey moo tax ñaaw ñaawteef yii yëpp ñu di ko def nu waay amee baax na nu waay xamee baax na muy ay naxaate yooyu dañ la koy nax yow mi ñuy nax ne la dama lay nax nga ne ko bëgg naa yow mii naxaate yi na nax na waaye ragaluma yàlla bu ëllëgee sëñ tubaa nga fa te mën na ko sëñ tubaa diggéewul benn yoon di def lu la neex di wax lu la neex nga koy gis bu ëllëgee ndax daana wax ne kat maa ngi waaj a tukki fu sori lool foo xam ne si danaa fa yàgg lool waaye foofee ma nekk day bu ëllëgee bisu pénc bi yàlla di wax na da ciy dajale jullit di leen atte man foofa man du ma fa bokk ndax defuma yàlla lu tax ñu di fa dajale waaye fee ma nekk day képp koo xam ne gis nga ma rek da ngaa tegu woon ci siraatal mustaqim yoon wu jub dong dong moo jëm fa ma nekk képp ku ne ko capp di dox ba mujj nga wàcc ko dem di jéem a seete weneen yoon woo jaar doo ci man kon lii ngeen di wax naan dañ leen di dugal ci bàmmeel ñu teg la ci loxol diw mu teg la ci loxol sëñ Touba man bàmmeel duma ma fa fekk kenn loolu waxi sëñ Touba la ku leen ko waxul da leen di nax exploitation bi moo war a jeex takk takk takk takk takk as gor ju am doole am am mbajum rus am judd gu baax war naa jomba tëdd ñuy yëkk liggéey di ko jox muy lekk boole kook lu ñu ko jox mu lekk boole koog ku mën di ñëw war a defaru te alal alal ja ngay tal ba duutoo tal la la la nga war a def ci moom ndax da ko dul tane kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax xam ne ormal sëñ Tuubaa dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci deret lay nekk fu waay mën a nekk nga xam ne ab murit nga yaa joxe sa bopp te kenn forcé wu la sëñ Tuubaa mi nga jox sa bopp nag war nga koy bàyyi xel bu baax a baax a baax ci di wax dëgg ak di def dëgg alali àddina bañ laa këf nit ki bu demoon bay dagg baaraam di lekk sax war na koo mën a jëndee lislaam waaye am na ci ñoo xam ne si fu nu xiifee fu nu maree wacc yoonu lislaam dem seeti weneen yoon wuñ ko war a mën a amee loolu nag mooy jullitu dëgg dëgg dëgg naa feq jullit boo xam ne si àddina dong dong dong nga tal tey jii fim mu ne nii nga xam ne ni la yoonu murid wi di doxee kañ la yoon wi di dem international kañ la yoon wi di génn ci xam-xam daanaka ci sunu biir lañ nekk di ndaxante rek kenn ku ne lalal sa fiir sa borom bëgg koo jàpp loolu nag moom buñ ca tolloo yoon wi dana bari qualité quantité lool waaye qualité du ko bari ndax nit ñi lu leen lu nekk moom la ñuy wër fi mu ne ku woote di woote lu noppale loo xam ne sii moom bëgg da nga am addina te am jaar ci liggéey doo ko jaar yàlla nit yi dinañ la wuy waaye koy woote ak jub dëgg dëgg dëgg dëgg nit ñi dañ la woon gannaaw dëgg sax boo ko dee wax dëgg dëgg dëgg dëgg day mel ne këne guñ la guñ ti guñ la tiimale di la ko tuuf doo bëgg a xool doo bëgg a dégg te doo bëgg ki koy wax te lu koy noppi loolu nekk boo xëyee ci ngay ci nga ci ngay xëyee ko gont te alxaqu min rabbikum waaye boo mënee fen mën a wor mën a wuruj di ko solal mbubb di tuddoo sëñ Tuubaa loo woote ñu wuy si la te li ngay wax wër na la wóor sa baaraam yii nga xam ne yàllaa la ko defal mu wóor na li ngay wax du dëgg ndax moomoo àjjana ndax àddina bii ñu nekk sax moomoo ko ndax mënoo cee defal sa bopp dara loo fi def dañ la koo defal boo dundee dañoo dajale alal jox la boo bëggee jënd dara da ngaa toog ba ñu dajale dara jox la ko wala buñ dajalewul dara jox la doo la ko jox muy ab temps bu yàgg nag boo xam si waxtu jot boo dee seetaan maanaam doxiinu yoon wi daanaka dafay mel na bés bu set aw xew aw xew la te koo wax nag mu daal di jël xasida sëñ Tuubaa koo xam ne si nam koy tekkee ak la ca sëñ Tuubaa jublu du benn murid yi dëkkee dang dang dang dang dang dëkkee maanaam tappale duñ liggéey duñ def dara dara dara nit ki bu liggéeyul nu muy amee ngoro nit ki bu liggéeyul bu bëggee dund nan lay def jaar ko ci buntub dëng rek buntub dëng nag boo fa jaaree xam nga ne kooku moom sëñ Tuubaa mi ngay wo mi ngay tuddoo doonu ko te sëñ Tuubaa mi nga xam ne moom lan yaakaar tey moom mësta toog mukk di foqi baaraam nit ñi di yëkkati donte cër bi li muy am li muy rëy rëy rëy am na ko déedéet Serigne tubaa dafa daan futti dem di liggéey di liggéeylu di di di sàmmlu nit ñi seen ngor ak seen diine sëñ bi mës mësu si ko gis mukk ci lu xeeb loolee la formé donga bi ba ñu màgg tey bañ jot ci tey bëgg a jël ndona loolee jël ko sànni ko taxañ ko tasaaroon nag bu ëllëgee ba dong la ñuy jur wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu